Donc, euh, au président. Qu'est-ce que tu fais là mbokk yi ñoo ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen gërëm ci seen di nuyu mboolem seen ñi seetaan ci direct bi waaye di nuyu képp ku mu sa seetaan waxtaan wi ndax ak xarale yu bees yi am na loo xam ne ñi seen waxtu jàppandi dañuy nekk en direct di seetaan am na ñoo xam ne it bu ñu amee jot ultérieurement lañ koy seetaan ñootewoon waxtaan wi nag pour jokkook askan wi ak gën a leeral yenn ci xew-xewu jamono ndax am réew boo ci nekkee bokk ci bokk ci ñi yàlla nattu jox la cër ngay wax ñu lay dégg waaye yemul foofu rekk yàlla nattu la ci ñoo xam ne saa suñu waxee wax ji jur débat national defe na day war day jaadu léeg-léeg nga taxaw jàkkaarloog askan wi waxtaan ak ñoom leeral leen dalal seen xel waxtaan ak soppe yi waaye waxtaan ak bépp sénégalais waaye waxtaan ak ñi nekkul sax sénégalais te di ñu suivre saa su waxtaan bi nag ci ñaari pàcc lañ koy def ba ci njëkk mooy wax ji jib yi ñu jëmale ko ci li nga xam ne mooy dox tànku jàmm ci réew mi rawatina ci langue politik bi ñu am luñ ci wax Barkati démb muy suñu taxawaayu bopp ak suñu sañ-sañu bopp ma leeralaat ko feddali ko waxuma ci turub kuréel su ma waxee kuréel nag waxuma parti gi ma bokk muy Pastef ndax am naa sañ-sañu wax ci turu Pastef waaye dama bëgg wax ni waxuma ci turu coalition bi ñu bokkal yépp muy yeewi askan wi coalition boobu dina fësal lan mooy position am ci mbir moomu defe naa ci loo xam ne yàggatul dama wax ci sama turu bopp ak sama turu kuréel donte li may wax nag mënul waroo torop ak li nga xam ne moom la coalition bi di wax walla moom lay xalaat ma wax ko fi ma ko waxee wax ko it ni ma ko waxee yàlla may ñu it lañ ca bëggoon am nañ ko ci ndax andi na li tubaab di wax débat national ubbi na bëtu sénégalais yépp ci mbir mi ndax balaa ñu ciy àdduna laata ma ciy àdduma man mii defe naa ñi xamoon la jëm ci wax jooju bëriwut wala bu ñu ko xamee it joxuñu ko woon boobu solo kon ñi sant yàlla la taxoon ñi wax ko nag mooy jàpp nañ ni dafa jot ñu wax ci taxawaay tey bii nag damay wax ni sama kàddu jëmalewuma ko ci ñu am péete ba noppi

te doo leen gis mukk nag xeex taxaw ba ñu xeex waaye ñoo xam lépp ñoo ñu waxuma ak ñoom sama wax jëmale ma ko it ñoo xam ne saa suñu yëkkatee dara lañ cay séenu ci suuf ak lañ la leen ciy jox moo tax ñu yëkkati ko ñooñu taxuñu maa wax ñii ma lim ñépp nag yàlla def na as toq la ci Sénégal minorité la boo xam ne lu tuuti la ndax Sénégal léeg-léeg dara am fi ñenn ñi rek ñoo koy yor nekk ci rajo yi ci télé yi di mbër mbëri mbër mbëri ba nga foog ni Sénégal a ngi tas waaye boo génnoon léegi dugg ci askan wi xam ne loolu ñu toog foofu di ko wax ak li ne ci askan wi sore na sore naw ak wo wo wuute na. ñi nga xam ne lii moo leen di dundal yàkkam yu tuyu ñu dul ñële wax na pour ñu tëpp nag ñii di bind ñii di wax ñii di tërërë yi ñooñu tax ñu may wax ñi tax may wax mooy askan wi yow askan wi yow laay waxal ndax yaa ma ñor yow askan wi nga xam ne la ci ëpp ci yow amul féete lu di xool fu dëgg ne nga taxaw fa yow laa waxal yow askan wi nga xam ni doonte ñoom nga yor seeni télé yor seeni rajo yor seeni journal bés bu ne ñu fexe nu ñuy lëbatee sa xel ci ay wax yoo xam ne lalawul ci te teewut nag la nga xam ko xam fa nga jàpp fa jàpp yow askan boobu laay waxal yow transporteur bi chauffeur de taxi bi yow mine gare routière yow étudiant bi yow fonctionnaire bi toog bureau di liggéey mu xam ci privé moo xam ci public yow enseignant bi yow mareyeur bi yow sëriñ bi yow kilifa diine gi yow sëriñu daara gi yow sëriñu jàngu bi bépp xeetu sénégalais ak foo bokk boo ci génnee minorité bi nga ne ñoo ŋànk Sénégal di wax subaak ngoon guddeeg bëccëg yow moom laay waxal di waxtaan goo xam ne dama bëgg ñu waxtaan ko te mu lalu ci dëgg dong nag ndax dañoo wax violence dañoo wax fitna dañoo wax kuy jog di dal ca moromam ta amul benn lay bu mu lay ba tax mu def ko dañoo wax borom yat wuy dóore loolu la ñuy wax violence ñu bëgg nag suñuy wax lu mel noonu keroog dama wax ab baat defe naa am na ñu mu naqari waaye saaga tax mu ci woon jóg xasti tax mu ci woon jóg waaye ki nga xam ne day gis dëgg mu ne fàng mu xam ne lii dëgg la mu dëgg ci tànkam fàtt ay bëtam ne duma ko xool kooku nan lañ koy tuddee. kon Sénégal dafa di réew moo xam ne wax fi dëgg dafa jafe ndax saa yoo ko waxee ñu ne def ñëw saaga yàlla ci boppam ci téere bi wax na ne ñii duñu waxkatu dëgg soo koy wax soo ko doon tekki sax ci làkk bañ ko waxee dafa ne ñii ay fenkat lañu yàlla wax na ko ci téere bi te yàlla ñu gën a ëpp moo ñu ëpp sutura moo ñu ëpp yar yàlla xool na ay nit ne ñii ay naaféq lañu li tax mu wax ko mooy loolu ñu doon def rek wëlbati kon suñu waxee saaga taxul ñu jóg wala xaste waaye senegal dafa am ñoo xam ne dañuy gis dëng bu ne fang seen intere taxaw wala ragal wala wala walla ñu fàtt seen bët ci dëgg boobu ba Si bëgg a wax safaan lool nak mo fi jeex té soko so leen dictature la ñu bëgg imposer nit ñi ba dootul wax nga wax rek ay wax wër ci télé yi ni la mel nitu fitna la nitu fitna moy kan ñun suñu parti 2015 dañu am récépissé 2015 dinaa leen limal tay 2015 ba tay ji lan la daj ñun ci violence 2015 dañu am suñu récépissé 2016 29 août 2016 violence commencé parce que suñu wax violence suñu wax fitna dafa bari forme fitna du rek jël aw yat di dóor nit waaye fitna saga nit mi ngi ci fitna xoqatal nit parce que yor nga état yor nga administration yor nga justice mi ngi ci fitna fay ay média ñu nekk ci deru nit suba ngoon mi ngi ci kon fitna dafa bëri forme kon 29 août 2016 la fitna bi commencé yéen ñëpp fekk ngeen bi mag Macky Sall di jël ab décret ne dàq na ma fa ma doon liggéeyee te dara waralu ko lu dul nee naa samp naa sama ndënd opposant laa d'accorduma ak moom amul leneen duñ la musa ne Ousmane Sonko sàcc na. te nekkoon naa foo xam ne su ma bëggoon mun naa am lu ne yàgg naa leen wax ku mun a génne benn preuve ni mus naa jël fukki dërëm ci impo kenn ku ko mën a génne rek na wax duñ la ne Ousmane Sonko daan na tardé duñ la ne Ousmane ko daanu liggéey fa mu mës a liggéey maa fa ëpp performance te ñëpp impo xam nañu milliards yi milliards dugal naa ko ci keesu état te mosuma encaissé fukki dërëm kon kooku. constitution may ko sañ-sañ mu ne damay dugg ci politique waaye àndumaak ak Macky damay samp sama parti nga ne loolu duma ko dégg ba xëy lu mu jàng loo xam ne jàngam ak ndimbale ay waajuram ñoo ko permettre mu jaar fi mu jaar ba def concours bu difficile ba liggéey nga xëy jël sa décret daa jël sa avion ne mes dem Kenya ne dàq naa ko liggéeyam ci anam goo xam ne bañ nga sax ay avocat teewe fu ñu ko waroon dégloo yéen ñëpp yéen a ngi fàttaliku li xewoon fii point E andi alkaat yi barricade point E yëpp ne benn al avocat rek laa am droit beneen avocat du dugg ba bés boobu audition amul loolu du violence ab père de famille yor njabootam di soutien de famille tooñul sàccul fenul rayul nga xëy ne dàq naa ko parce que àndul ak man te boobu jamono ñaata inspecteur des impôts ñoo ànd ak moom naan Macky Sall moo gën a rafet te ñu ci bëri suñu leen càmbaroon tey de loolu du violence ñu doxati le 6 octobre 2018 ñu organisé suñu meeting Kër Massar doon dëgmal élection présidentielle pare meeting qui ki nga xam ne à organisation meeting jóge ci meeting bi dugg këram à côté ñu fekk ko fa rey ko ci anam goo xam kenn mënu la wax nu mu muy soxna mariama sagna ba angket ubu ubu. ubbiwuñu ko ba tey jii mënuñu la wax ku def lu ñaaw loolu li nyawa a garaaw mooy lenn ci seeni responsable taxaw wax lu ñaawa ñaawa ñaaw ci ci jamono nga ngi ci loolu ban violence moo ko gën a rëy nañ ma ko wax ba tey jii moom moomu soxna Mariama Sadia ñetti bant yi fi ñun fay seeni njàng ñoo leen di toppatoo lu ñu def est-ce que mos ngeen dégg Macky Sall mu violence est ce que mus ngeen gis ay Samba Mboyam dal ci ñun mu génn ne condamné naa ko musul am doo ko mus a dégg parce que moo leen yebal léegi ñoom ñëpp dem nañu ba waxkat yi bindkat yi saagakat yi dóorekat yi ñëpp jàpp nañ ne pour nga am kot ci Macky Sall saagal Ousmane Sonko wala nga dóor ko soo demee mu wala félicité la encouragé la ñu toogaat tuuti. ñu attaqué suñuy militants Ziguinchor dem ba dugg sama kër wayjur dem di nangu ay de parrainage loolu octobre 2018 ba la diggante bi fat faat Mariama la ak de def loolu daanaka juróom du violence ñu doxati le 23 janvier y a ngi fàttaliku ñu ngi campagne électorale avant ñu dugg ci campagne électorale bi bu mu 10 ay dix jours la ñëw suñu siège bi yo fi fa ay Samba Boy Nous ki nga xamné tay moy xëccio maire mairie Dakar de dafa bëgg a nekk Dakar ministre fa ay Samba Boy ñu dugg ci biir toj ordinateur toj bagage yi fa nekk yi plainte gendarmerie gendarmes yi identifié ñi ko def une ñu leen leen mi ci souf ba ji fa la du violence ñu subir ko ñu doxati ndar le 4 février eu ñaari fan après coalition bi mom goro président organisé une attaque contre suñu militants fële ci ndar ñu gaañ fa ñu bëree bëri bëri ñi ñu damm seen loxo ñi ñu damm seen tànk ba tey jii déposé nañu plainte def nañu lépp fa la jaare tabbi géej loolu du violence le 10 février toujours ci campagne bi ñu organiser ab euh, piège bi ñu demee bi ma demee Mbour di campagne ñu organiser ne du ma dugg tefes daal jël ay oto baare foofu jël ay sàmbam ñu ñëw attaqué sama convoi loolu violence la ñu jóge foofu ci même bés ba war a fanaani Fatick ba ñuy dugg Fatick lañ ñu fa attaqué dóor ci ñu bëree bëri gaañ ci ñu bari ba tey jii am nañ kenn koo xam ne au moins weer wu ne dinañ ko andi ndakaaru pour ay rééducation yu muy def ci ay tànkam loolu mu ngi fi yàggu fi. loolu du ay violence contre passive le 18 février 2019 Muntagasi Sy DG Apix daal di recruter ay Samba Boy bi may romb ay relaaw ñu attaqué ñu sànni xeer créé fa problème boo xam ne kenn xamul nu mu Ce que je li c'est wax Google tape léegi gis ko ndax internet au moins comme censure bi bëri na fii comme censure bi bëri na ci dëkk bi waaye internet moom au moins mën nañu am lenn ci seeni média de mais internet bi kenn moomu ko moo tax suñu jógee naan xale yi dañuy saaga ci internet bi xale yi déedéet violence bi ñuy daj ñun ci média yi média yu bëree bëri bëri ci réew mi violence boobu moo gën a foor fuuf réponse yi nga xam ne moom la xale yi di am encouragé wu ma ko facilité ma ko waaye outil boobu lañu am xool leen télé yi xool leen rajo yi lundi ba dimanche am Ousmane Sonko andi Ousmane Sonko ku ga dàq mën ne saaga Ousmane Sonko rek la ñuy tàllal micro ne ko demal saaga loolu moo fi xew kon te li may wax ni Sénégalais nañ ci bàyyi xel nag dañuy suivre rek parce que fii kenn kenn gumbaatu fi. ku foog ni jël ay milliards jox ko ay ay ay ay ay ay patron de média am na média yu baax am na média yu jub la ëpp ci journalistes yi ñu ngay def seen liggéey correctement waaye xam nañu système bi nu muy fonctionner ku foog ni nag noonu nga mën a régler problème bi da ngay nax sa bopp jamono ji jamono clic la ñun sonn ñu ci te plus ñuy wax plus barke bi di yokk plus bayre bi di yokk ñu ngi sant yàlla ndax su doon looloy détruire nit détruire nañ ma bu yàgg dañuy wax fii ci campagne bi balaa ñu dugg campagne bi naan ay russe ko jox xaalis ay xam nga ay société britannique moo ko jox ay milliards ak lu wax ko fi sos dara dox suñu dox dictature bi bëgg imposer fii dina jafe de ci ñoom ñu ñëwaat

citoyen bu jógee këram war a dem tribunal yow am nga sañ-sañ ne ko yoon bii ngay jaar forcé te defaat nañ ko barki dem ku ñu convoqué kay suñu la nee 9 fexeel ba 9 fekk la fa est-ce que day xëy 6 di du matin dem Pikine dem Guédiawaye doog a ñëw loolu yoram sa yoon newu ci ñu créé fi ay violence yoo xam ne gaañ na nit ñu bëri loolu ci xeetu violence yi la diggante février ba mars yéen ñëpp gis ngeen ni ñu defoon sama kër. char de combat fi char de combat fële mu melni Hitler lañuy surveiller amo sañ-sañu génn traumatiser sa famille traumatiser sa wa kër say dom suñuy ñuy jangi sax dañuy tit loolu lan moko upp ci xeetu violence ñu ñëw dadi utiliser violence aveugle ñepp gis nañu Macky Sall dem recruter ay Samba Boy Samba Boy siège APR lañ newoon ak siège PS vidéo yaa ngi fi ñëpp gis nañ ko jox leen ay fetal ñu génn di tiire ci xale yi ba fukk ak ñeenti bakkan rot ci lan mo ëpp loolu ci violence loolu du violence loolu du fitna loolu du lorange bu ñu nit Macky Sall mooy le président le plus violent du Sénégal Moussa am fukki bakkan ak ñaa ak ñent rot na ci ñaata nit ci blessé biñu paré ba légui bañ na ne du recevoir euh, mbokk ñi sen bakkan rot bañ na bañ na né du leen indemniser ña ca ñun ñi ñoo di faj ba tay dañoo jël ab kër fii wakam dugal leen foofu di leen faj ñii ñu ngi ci rééducation ñu ngi ci ay situation yu métti ñii dañoo tétraplégique weer wu des nañ ci def lu mu tuuti ak genn ne du recevoir du recevoir indemniser ñi ba bakkan mais loolu lan moo ko gën ci violence te pourtant bi ab militant Euh, faat nañ ko ci loo xam ne du violence bu ñu xam politique assassinat la dafa dem indemniser même ñi mu àndal ñi ñu dàppoon assemblée bi mu nekkee nguur dafa dem indemniser leen ñii seen bakkan rot mu ne du ci joxe fukki dërëm te du recevoir seen waajur loolu est-ce que am na lu ko ëpp ci violence est-ce que am na kon chaque jour nous ñuy dund ak ñom lool saa so génné ciogal ñong lay top fo dugg lay sa kër dañ koy surveiller sa njaboot dañ koy surveiller say violence C'est am une torture psychologique sur les gens ci le 25 juin 2021 yeen ñepp ngeen fii.

lan moo gën a violent loolu nañ ma ko wax ak yeneen yoo xam ne 31 octobre bii weesu walla 15 octobre gis ngeen ba ñu may attaqué Ziguinchor te ki ko def moo ko may fit ndax moo dajale ay ndawam mooy yenn ndaw yi ngay gis rek mu caamu cooy nekk ci télé yi di wax ne leen kii seen masse yéen a ak koy parce que def ak lu ñu reñoo ñu yëg ko nga gis ñenn ñi di jaay fit ñaari fan ñett yu ne ñu ne ci télé bi di wax la amul leneen mom Macky Sall moo molen ngemb moo leen may fit way way su ma demee sama dëkk waa INACOI invité ma ñu war waxtaan ci économie locale bi nit nek fi du fi dugg ba tax nga dem yenu say sa sa est-ce que ngeen Macky Sall violence Si mus ngeen ko mu je condamne l'attaque qui a été perpétrée contre Ousmane Sonko à tel endroit kan ce que fi musulam parce que mom xam nga différence Lumai def dama koy assumer man du ma mii kër mu ay nit ne leen dem len sagal ma dem leen dóoral ma ma taxawee ne loolu mooy suñu wute su ma bëggoon dóor ñëpp dinañ xam ni may dóor waaye man du ma dóor kat du ma kat yarewuñ ma ci loolu xamuma loolu moo suñu papa yeeg suñu yaay yéen laay waxal ndax léeg nga dégg ñu naan waaw diw dafa yaroog nangam nangam gis nga dañ koy ci ay duñ ko natt si suy wax ndax day wax waxu ku sedd ak waxu kàkkataar ak déedéet jëf la ñuy natt atak boobu am na 15 octobre 31 octobre ñu delloowaat attaque ba ba tey ca Ziguinchor loolu noo ko mën a ci yokkee nag jàpp yi ñuy jàpp ci lo xamné amul ben fondement té sa suñu jappé nak njëkk nañu génné alkaat yi ba ay nit gañu ci té li mo wax mooy li nga xamné ne concerné na euh, Pastef kessé nee naa violence verbale yi du ma ci wax té nak mo gëna mëna yé fitna parce que fi ku nekk da nga am njaboot am na yoo xam ne mënoon nañ ko régler neneen waaye ñun ñoo topul yoon boobu téye nit ñi toog xam ni foo xam ne yonent yi muccuñu ci nit ñu baax ñi muccuñu ci ñun mënuñ cee mucc li ma wax keroog nag tànk mi ngi ci ay saaga wax ju ñaaw loolu day dem waaye nag yëkkati ay yat ak ay ngànnaay dem dóor ay nit keroog Ziguinchor suñu gaawuloon am na benn xale boo xam ne fii ci baat bi lañ ko jam paaka bi naan faj faj faj foo toll mu yegg fa kooku mënoon na Euh, euh, euh, munoon na munoon na ngaccu ba jeex takk suñu gaaw lool loolu barki démb la ana justice su senegal ana procureur ana police ana gendarmerie li gën a garaaw mooy su ñuy def yu mel nii keroog bi ñuy attaqué Ziguinchor police nga fa dañ leen woo ñu ñëw fële la ñu taxaw ci kaw tali bi egg si wuñu waaye bi ñu delluwaatee waajal ko. waa ji ñu duma ko duma yu métti woo woo na police mu ñëw doyul mu woo gendarmerie mu ñëw doyul ñu woo armée ñu ñëw ak seeni mété loolu yéen ñëpp gis ngeen ko deux poids deux mesures boobu pour lan kon fii benn violence moo fi am mooy violence d'état te yemul ci loola dama ne lii mooy li nga xam ne moo ñu concerné ñun waaye 23 mars bañ condamné Karim Wade ci lo xamné man dama wax ni du justice ñepp dal sama kaw may leen li règlement de compte politique la du justice fan la mujjé créé fan la mujjé liste bi mu du amna ci ño xamné conseil des ministres ak Macky Sall justice buñu nax sénégalais yi sénégalais soif de justice mais dañ leen nax

ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ñaata yoon lañ fi jàpp activiste yi parce que dañu war a def marche parce que dañu war a dañu def benn post ci Facebook nga jàpp leen pamti pamti leen rëpp ci kaso bi boobu jamono ñii nga xam ne dañoo randal alalu réew mi ay rapport am cour des comptes of nag leneen leen nga téye leen làq leen sa gannaaw loolu du loolu du violence parce que première violence mooy injustice ku ànd ak man lu la neex def ku àndul ak man

dañ ma ko génneel kan moom mun a ne mus na gis waa Pastef walla waa opposition dal ci kaw waa kër Macky fekk leen ñuy meeting ñu dal seen kaw wala fekk leen ñuy def seen karawaat ñu dal seen kaw wala wala wala kan moo ko fi mun a génne amut amul te du mus a am kon lan moo indi wax ji yépp imma ñeme na nit ñi def, na nit def dañuy dem jàpp ci loxo Macky Sall ne ko yow yaa nekkul ci dëgg yar bi nga yor di dóor nit ñi teg ko ci suuf suñ ko ñemewul nag nañu dem toog bàyyi nit ñi ñu régler seen problème parce que tamit ñun ñëpp ay julit lañu alquran bi ñu gëm moom ci lan lañu sant bu nyari ñaari nit ñaari groupe tongoo nañu bu dee ñaari groupe tongoo nañu sama alwa soriwul nag sama sëriñ sama xarit sëñ sëñ al amin si li may wax peut-être moom ma ko gën a xam waaye alquran da ko wax ci sourate Hujurat bu ñaari groupe tongoo nañu verset 9 na ngeen essayer da fetal seen bu ame ben groupe bu beew bañ continuer moom ci tooñ bi ak ci dóore bi yéen ñëpp nangeen ànd xeex ak moom ba xelam dellu ngeen doog a rafetalaat diggante bi yàlla moo ñu gën a màndu yàlla moo ñu gën a màndu nit ñi dañoo ragal Macky Sall wala lan yàlla xam na ni li fi am yëpp su doon am na benn bu jógee ci opposition benn bu jógee ci Ousmane Sonko kon dootuma xaj ci dëkk bi dootuma fi xaj mais lan moo waral ne Sénégal bu nit yoree nguur lu ko neex mu def te kenn du ko wax ba pare ne waa opposition banque leen seen yoxo rek te toog muñ lan moo waral ñu jàpp ni fii Afrique rawatina Sénégal ku nekk opposition rek yow da nga war a nekk benn souffre-douleur mooy dañ sax soo ne opposant la ah waa la di nga dem kaso lan moo ko waral pourquoi xanaa tubaab bi ñoo ñu gën a bëgg seen bopp. tubaab nit mën a opposé subaak ngoon et cetera mu am ay règles démocratiques te kenn du toog naan kii dañ ko war a tëj kaso Sénégal boo ne opposant la rek li ñuy njëkk a xalaat ah mbaa waajal nga sa bopp ah dinañ la dóor de ah dinañ la yóbbu kaso de pourquoi opposition crime la wala lan la nañ wax ci ban charte réew mi lañ ne opposition crime la ba kuy opposé rek da nga war a dem kaso wala kuy opposé rek da nga war a toog ñu lay dóor subaak ngoon parce que waa ji yor nguur fan lañ ko bind ci réew mi loolu nag dina fi dañ ci nii wala ci nële dina fi dañ wax naa ko léegi Macky Sall ci lañu am ci président moo ci gëna a violent moo ci ëpp fitna ndax li ma taat li ma site nii amul ci benn nguur bu mu am gisaguma ko fi moom ci juróom ñetti at li lépp def na ko fi te su ma continué woon boo matul 15 minutes encore ñi ngi fi may cité. loolu ngir ndax lan te li gën a garaaw nag nit ñee koy nax ay nit a taxaw naan waa ji c'est un grand stratège politique nga stratège politique mooy ñoom Mahathir mooy jox nañ la réew def nga ñaari mandat réew ma soppeeku na nit ñi seen jafe-jafe wàññeeku na réew mi tegu na ci développement loolu mooy stratège politique waaye stratégie politique boo xam ne njuuj njaaj rek pour liquider adversaire moo am des pseudo analystes yoo xam ne soo leen gisee ci télé yi Macky est une bête politique nous way ñoo xam nañ ko tuddé nañu nak suñu nous ñeneen ñi ñu ñeneen ñi taxawal démocratie Nous avons des règles de jeu transparent transparentes nit ñi di compétir ci nous mu des nous li tax ñu gën sénégalais bu Italie wala Allemagne wala États-Unis wala fa nationalité pourquoi suñu nekkee sommes ñun suñu lolou ñak sa bëgg sa bopp wessul lol Macky Sall donul rew mi te gënul kenn fi ci fépp fu ñuy nattee nag ngëneel gënu fi kenn kon loolu il faut mu jeex may wax nak ni ñun duñu nitu fitna suñ doon nitu fitna kérok ci mois de mars bi xam ngeen ni kon heure bi démé na neneen ndax moom bu muy dem làqatu ci rolalam ñemeetul génn kilifa yi buñ ñu nee lii lañ leen sant defee nañ ko noonu nitu fitna du def loolu dañuy dégg dafa fekk ñu nekk ñu njëkk a mën a jàmmarloog Macky Sall ak ay injustice ndax def na ko ñeneen ak ñeneen peut-être conditions yi dajewul woon pour ñooñu mën a jàmmarloog moom te loolu duñ ci teggi suñu tànk tey duñ ci teggi suñu tànk ëllëg dama koy wax mu leer nañ duñu ñu dóor kenn kenn du ko mës gis duñu ñu xas kenn du yebal kenn fenn waaye dootuñu nangu ku yor ay gànnaayam di dóor ma wax ko mu leer nañ mu des nag léegi ñaar ba ñett ci ay wax yu ñuy dégg ma bëgg yow askan wi laay waxal ma leeral ko léeg ñu ne waaw moom li mu wax respecté wul marabu yi respecté wul kilifa diine yi su ñu su doon ñi respecté wul kilifa diine yëpp ni man lañu ñu mel kon de léegi léegi léegi ñàkk respecté kilifa dina jeex ci réew mi waaye nag dinaa fe dinaa wax lenn tey mu leer toll nañu ci réew muy foo xam ne bu dee boo génnee taxaw ñëpp daw si. boo waxee ñëpp deglu ay junni junni junni di topp la ànd ak yow yaakaar ci la ngay def man soxlaatuma soxlawuma intermédiaire sama diggante ak kilifa diine yi parce que loolu moo fi am ku nekk day jóg taxaw ne moom mi ngi wax ci turu kilifa diine yi buma ma kilifa diina soxlawee su ma woowee ma taal sa moto wuy ji ko bu ma ndaw ma déglu ko man buma ma ko soxlee dinaa yónnee demander audience bu ma ko mayee ma sa moto dem wax ak moom waaye man kituru wax ci turu kilifa diine bis bu ne nga gis ko nit su buggee def dara ne dajal nañ kilifa diine yëpp wax nañoo ak ñoom bu ko defee ku ne man li ànduma ci ñu ne dafa dafa waroog kilifa diine yi man kenn duma ci dugal de jàpp leen ñi fi toll ci réew mi keroog toll mi mel ni mu mel kilifa diine yi dañoo yebal ci ñun ñu leen ñu ñaan ñu li ñuy ñaan ñu nangu ko jàpp naa ne diggante bi noonu la war a demee muy benn ñaareel bi léeg-léeg bu dara amee comme ñoom dañoo dañoo dañoo ragal buur communication bi mooy fexe ba ne ñoom ñëpp la boole ñoom ñëpp benn lañ loolu il faut mu jeex fi ku amul courage. keroog bi qui li li am Ziguinchor ay nit taxaw def déclaration gis ko ne ñun ñoo ko parce que duñu d'accord mu ñëw fi nit bu ne société civile la bokk dem ci ëllëg sa émission ne ñoom ak ñoom la ñoom ñëpp on les renvoie à dos loolu ñàkk màndu weesuwul bi léeg ñu ne ñoom ñëpp ay dañoo yor ci ñàkk màndu la bokk man de am naa sécurité waaye sama sécurité du ko ñuy yebal ne ko demal fekk ñële dóor leen sama sécurité pour aar ma man la weesu loolu la différence entre garde rapproché ak nervi mooy nervi da ngay recruter ay nit jox leen ay gànnaay ne leen dem leen tas mbo mbo mbootaay bële dem leen taal kër jàmbur dem leen euh, song manifestant yi loolu ñun amuñu ko ñun sécurité la ñu am ñun la ñuy àndal fu ñu dem bu lorange waré joggé fëlé dal suñu ka ñu ñu fexé ba feng ko lu fofu la yam kon li ñuy essayer nërmal xelu xelu sénégalais pour ni ñun ñi ngi am nañu armée yor nañu li nañ ko bàyyi nañ ko bàyyi nañuy wax dëgg te yem ci ku mënul wax dëgg nag na nga maanu mu des nag lii nga xam initiative la ñu ne charte la bëgg a wax respecté na torop ñi jël initiative bi torop sax ndax mois de février dañu ñëwoon sama kër ma dalal leen sama serigne al amin ak ñeneen ñi mu àndal yépp maa ngi leen nuyu bi ñu ñëwee maa leen dalal mu fekk fa Bassirou diomaay fay ak maître Ciré Clédor lii bañ leen dégloo ba pare dama leen ni tànk yi ngeen di dox yéen ban garanti ngeen am ak ban gëdd ngeen am ci Macky Sall ba mu leer ni tey bu ngeen waxeek moom dina leen may nopp muy ben ndax su ay xalif généraux ñooy wax ak moom dégluwu leen dina ma jaaxal torop mu déglu keneen may leen bi est-ce que bu dee leer na leen ni Macky Sall moo nekkul ci est-ce que am ngeen sañ-sañ taxaw publiquement ne Macky Sall nekkul ci dëgg parce que loolu mooy ku bëgg a defar buñ ma ne nag non comme président la ñun ci biir lañ ci ruq lañ koy wax déedéet parce que opinion bi dafa soxla xam opinion bi dafa soxla xam bu ngeen ci mu a ndax di ngeen publiquement ne ah waa ji de moom moo ci yoon muy ay laaj yu ma laajoon aw ma ci tontu waaye gis naa ni mu demee ñu nangu leen lool nag parce que keroog le 8 mars daanaka ñoom ak docteur Cheikh Tidiane Dièye ñoo yendu suba ba ngoon jot préfet di woote tout le temps fa ngeen toll nañu def déclaration nañu woo xale yi ñu génn ñu dellu seen kër boobu waa ji woon ci rollal ba bés boobu ñu nangul leen ko kon ñoo ñu jox nañ leen cër. waaye la may laaj mooy diggante 8 mars léegi ñoom fan la ñu nekkoon ndax bañ a sowee Macky Sall ba mu dem toogaat teguñu ci 20 jours mu dem fii Diamniadio tëkkuñu ñun ñëpp ne li fi amoon dootu fi am dinañ gis man may kan ñu ngi fi woon dégguma wax ji bëri ci. ba bi muy mujj déclaré barki démb ne moom mu ngi ak tous les pas pour defar réew mi de mais pour song ay ay adversaire politique am ci diggante bi bañ ñuy attaqué assemblée nationale attaqué ñu ñaari yoon Casamance fan la ñu ne woon parce que tam sooy def médiation mbir mi da koy topp da nga koy topp ñaareel bi. charte bi lan la mën a garantir loo xam ne constitution réew mi ak loi yi gara mënu koo régler parce que violence constitution bi da koo réglementé loi yi réglementé ko ñu am une justice pour régler ça wax dëgg yàlla ñaata plainte la ñu déposé après des violences justice bi faalewuñu ñaata plainte ñaata la ñu dugal ci tiroir yi tëj ko lànk ne duñ ci wax kooku nag su dee loolu mënu mënuñu koo régler foofu nga foo ne ab charte boo xam ne amul benn force exécutoire mooy tënkul kenn foog nga ni charte boobu mën na mën na régler problème ñetteel bi ñun duñu ñu nangu ku tëj en tout cas man du ma nangu ku ma tëj parce que signature dafa diis soo signé ba pare ki yor nguur gi moom lu ko neex mu def te kenn du ko wax dara mais yow bis boo yëngatoo ñu ne yaa signé woon. bu daloon sa kaw sax nga yëngatu ñu ne yaa signé woon charte bi bu ñu wëlbatee élection yi nga jóg ne du fi amee ñu ne yaa signé woon loolu mooy danger bi nekk ci signature yooyu su dee ki ki lay signaloo amul benn benn benn jumtukaay benn euh, euh, kilifteef pour ñaar ñi muy signaloo mu mun mu mun leen tënk ci loolu ñu signé loolu mooy danger signature ñetteel bi nee nañu charte la ñu bëgg mais charte am ba pare nañu waxaat wax ji bu leen fàtte ni woote nañ fi ñaari yoon dialogue national ana dialogue national boobu keroog mois de mars ba ñuy waxtaan ak kilifa yi sëñ Bass Poroxaan maa koy nuyu di ko ziyaare ñëw ñu waxtaan sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wër yónni ko bi mu ñëwee ñu wax waxtaan dañoo déggoo ni ne ko lépp dinañ ko teg ci suuf ndigal la mu ne sëriñ bi dafa ne lépp lu ngeen jàppoon na ngeen ko tënk ci kayit jox ma moom moo koy yéet Macky waaye daf leen ñaan ngeen teg ci suuf ñu teg ci suuf daal di bind suñu mémorandum jox ko mémorandum boobu mémorandum boobu yéen na ko Macky waaw juróom-ñeenti weer weer romb na fan la mémorandum bi toll parce que ci lañ ko ne woon ña ña ña boom xale yi il faut ñu jàpp leen def enquête jàpp leen juger leen tëj leen ci lañ ko ne woon ñi ci gaañu ak ñi nga xam ne seen bakkan rot na ci il faut nga indemniser leen nun de dajale nañ li ñu mënoon yëpp ay millions joxe sëñ Muntaxa yëkkati na cinquante million joxe ana lu Macky joxe ndàmpaay kan lañ kan lañ ko jox ci xale yi. parce que yëfu soxor ak fayantu rek moom loolu la xam waa do kayit googu ñu ko joxoon ne ko ñetteelu mandat dafa war a jël engagement public ne loolu dootu ko fi tudd defe naa fukki poñ moo ci ne woon loolu chart la fan la toll ñun signé nañ ko ba pare dem def suñu déclaration de Bignona M2D bind suñu charte bop jël engagement à la non violence ba paré woo leen ñoom pour ñu jël même engagement bi bop ba légui attaque doré saga loolu lañ ci jël loolu lañ ci récolté li moy dëgg bi nañ ko wax ñettel bi moy toujours ni ma ko waxé ñun japp nañ ni fi toll ni la qui de régler problème de violence moy dafa am ay loi am justice am administration ñiy def xam nañ faire na ñoo violence jeex fi luko moy nak ku nekk dina jël matwayam ba sa suñ la nga mëna ar sa bop té ko ci bi ci justice ndax yéen ñëpp gis ngeen ni mouvement bu mag am na barki démb waaye li xew dafa wanewaat rek ni justice amul indépendance au senegal may masawu nag magistra yu bëree bëri li ci ëpp nga xam ne ay gor lañu ay patriote lañu ñu jub lañu ñu gëm seen liggéey lañu waaye ñu leen di xeex di leen xoqatal ak di leen ber parce que su ñuy nommé ci yenn poste yi dañuy dem seet lu gën a nooy ak lu ñu garo gën a mën a manipuler moom la ñuy dem jëli ku ci am dignité am am personnalité am ñu jàpp la sànni la fële fële ci xaj loolu mooy li fi xew lu ko andi nag mooy président de la république ak ministre de la justice waruñoo siéger ci au conseil de la magistrature loolu xewwi fait nous avons am séparation des pouvoirs ci cadre boobu te tontu bu ministre bi tontu kenn ci juge yi ko ne lii nga def du yoon am courage wax ko ko Nous avons ko ko war ci kanamu président mooy dañoo soxla foofu ay magistrats euh, ay juges euh, d'expérience loolu wane na ni c'est l'exécutif qui choisit ses juges ku la ku la ëmbal nag wala ku la abal ay gët fi mu bëgg nga xool ngay xool looloo fi am kon bu ñu kenn wax indépendance de la magistrature loolu amut ñaareel bi mooy ñi ñu tànn ñëpp man annoncé woon naa ko bu yàgg su ngeen demee sama post bi ma def sama page Facebook le 14 juillet laa leen ne woon euh, kii ñuy wax. Euh, amadi Diouf la ñuy yóbbu procureur loola tax dossier 94 milliards yi nga xam mi ngi woon ci kaw taabalam mu gaawantu def ko classement sans suite ci loo xam ne du dëgg ndax ba mu koy def jamono euh, chambre civile tribunal hors classe Dakar jël na décision ba dëggal ma ba ne nañu delloo famille Thiandoum intégralité titre bi loolu nag suñ ko waxee mooy 94 milliards yi ñu jox jàmbur xaalis bu ñu sàcc la xaalisu réew mi la bu ñu jox ay nit ci loo xam ne moomuñu ko ab juge ni muy gisee loolu nekk chambre d'accusation gaawantu ne maa ngi koy classé sans suite te lan la wax li tax mu classé ko sans suite we weddiwul ni càcc gi am na de mais nee na kii yooxu wëpp sàcce yi du moom moo war a yooxu wëpp sàcce yi masalan sàcc dugg na cib kër dajji kopparfor bàyyi ji di daw doom ji gis ko ne wub sàccee gars ne noonu doom jee war a wax bàyyi jee war a wax loolu ab magistrat dina ko wax léegi nag tey yóbbu nañ ko procureur dina fa fekk rapport OFNAC ndax OFNAC def na rapport am déposé ko octobre 2019 ne Ousmane Sonko li mu wax yépp dëgg la te maa ngi demandé le parquet mu ubbi ay une instruction judiciaire contre ñi nga xamné ay escrocs lañu Serigne Bassirou koy tek ci tankam kooku mom histoire dina retenir ni musiba magistrature wessul kooku té nak dafa yàgg a yuuxu moom sëñ Bassirou Gueye ne Ousmane Sonko dina ko tëj fu ne mu wax ko en ma en bo xam te musuma ko gis xanaa ci télé lu ne mu wax ko menacé na ma fi ci ay conférence de presse dem na ba ma fi de te néeg la te bi mu dossier ñu ne dossier Ousmane Sonko la ñemewu ko woowu ma man lu dem jël Je dem Samba Sall transféré ko dossier bi lan moo ko yor na dossier yor na PV d'enquête yor na lan moo ko teewoon mu woo ma dafa daw parce que ci complot bi la bokk léegi nag dem na pale dina fa fekk soo maître es complot ñu ànd di complot kon kii mënul nekk procureur buy régler problème bi Macky Sall juróom-ñeenti weer yépp da doon ut lu lu lu mel ni ñim fi bëgg a jëlee wala lu leen yées parce que yàgg naa ko wax lii di poste procureur lii poste doyen juge cour suprême chambre d'accusation conseil constitutionnel moom loolu mooy magistrature am de na fexe ba téye loolu rek kon maa ngi wax askan bi yëpp nañ ko seet saytu ba xam ndax rapport bi nag def teg ko ci taabalam ne sàcc nañu ay milliards yi milliards alalu réew mi rapport boobu dina ko génne gannaaw moom ci boppam bi mu demee ci beneen judi juridiction ne sàcc amul est que dina ko ñeme ñaareel bi mooy ki ñuy wax Omar Maham Diallo kooku nag moom li xew démb ak tey doy na waar ndax koo xam ne yow juge nga dossier am boo xam ne attewuñu ko nga dem jël ay article partagé ko sa page Facebook article yoo xam ne day chargé Ousmane Sonko day wax lu bon ci Ousmane Sonko day accusé Ousmane Sonko tey ñu ne yow yaa war a jël dossier boobu est-ce que xel mun na nangu loolu diggante démb ak tey njëkk naa effacé waaye léegi tëj na page ba sax kooku mënul présenter garantie impartialité te looloo tax ñu tànn ko nag boobu ba léegi ñu ngi tànn euh, juge d'instruction bi premier cabinet ci ñaar la woon kenn ki ñuy wax cuun moo téye sama demande de de levée de li ñuy wax tudd affaire bi contrôle judiciaire ay weeri weer ñemewu ci tontu di mbokk géwélu Macky Sall dëkk même village bi mois de juin mu demoon teere ju Macky Sall Fouta ak kii nii ñu jël moom it di waa Ciloñ ak juuf mii nga xam ne waa Fatick la yéen def leen le lien lépp rek pour yeggali liggéey boo xam ne ñoom xam nañu di mus yegg loolu moo fi am kon lii mooy justice su Sénégal suñ ma nee nag diw il est intègre mais il est faible loolu la ñuy wax ci benn ci juge d'instruction intégrité ak faiblesse nous. un homme intègre n'est jamais faible parce qu'on tire sa force de son intégrité bu la leeree ni amoo dara loy ragal sàccoo fenoo jëlooloo moomut man mo loy ragal loolu mënul ne kon li la bëggoon wax ci lu mujj naa gudd sax

bind ak wax luy defar ak luy yokk réew mi lañu xam bi ñu gisee ni loolu lañu ñu àndi ci politique te nit nag noo ñu bañ bañ bañ xam nga ni suñu dugg politique ak léegi am na lu ñu amélioré ci débat public bi la ñu ne nag nañu fexe ba kase loolu moo andi lii ngay gis ni yépp waaye ñun kenn mënuñoo détourné dama jàpp ni un homme politique day xalaat di bind di proposer diggante 2016 ak léegi defe naa génn nañu ñaari téere ci fan yi di ñëw incha allah dinañu génne ñetteel bi nga xam ne lii nga xam ne mooy suñu modèle décentralisation baaxul te du jëmale réew mi kanam dinañu proposer sénégalais suñu modèle bi ñu gis ñun. ñaareel bi candidat nag ca Ziguinchor waaye programme bi may bind du programme mu Ziguinchor parce que man dama am approche wu pôle régional.

lenn ñi di wax nag weddiwuma ko ñoo ngi jël suñu matuwaay ci lañu mën waaye ku la yéene kaso ku la yéene dee koo xam ne lu mu xalaat ci yow lu bon la suñ la nee ma ngi lay pexee bu ko xeeb ñoo ngi jël nag suñu matuwaay pexe bi yàgg na 2019 wala 2018 parce que am nañu chance am ñu ne ci biir xam li xew yépp ci la ñu njëkk a avertir boobu maa ngi waaj a defi Casamance ñu ne boo demee def tourné Casamance waajal nañu ba boo duggee ci àll bi ñu tiire ñu fital la fa ba pare ne nit ñu nekk yor gànnaay nekk ci ba def waraloon ñu ñu annulé suñu waral ba bu baax samay ci parce que seen pexe yëpp mooy fexe ba defee ko ne diggante moom kon suñ ñu avertiré ci lu mel nii te bis bu nañu andil ñu bu bees duñ ko xeeb waaye ku bëgg jàmm dëgg dëgg dëgg dëgg ci réew mi ku bëgg sa jàmm bopp bëgg sa jàmm njaboot ak loo yaakaar ni moom nga yor ci doole bu la dara dugal ci yenn yi loolu rek laa ciy wax maa ngi leen gërëm di leen sant euh, ci déglu bi je résume fas rapidement en français on nous a Nous avons souhaité tenir cette conférence de presse pour parler au peuple sénégalais. Je ne m'adresse pas aux polémistes. Je ne m'adresse pas à ceux qui sont foncièrement clivés et qui appartiennent à des courants adverses. Je m'adresse à cette grande majorité silencieuse qu'est le peuple sénégalais. La violence est détestable, voire même haïssable, d'où qu'elle vienne. La violence n'est pas souhaitable, parce que rien ne peut se faire sans une paix, et une paix durable. J'ai dit l'autre jour que nous sommes les premiers promoteurs de la violence, parce qu'il ne sera jamais établi un seul acte de violence que nous avons commis de manière offensive nous avons toujours été sur la défensive, nous avons toujours, résisté à l'oppression, notamment à l'oppression de Macky Sall. Et pour ce faire, je vais vous donner des faits, des chiffres et des dates. La première violence qui a été exercée contre nous l'a été en 2016, au mois de 2016, lorsque je fus radié sans raison de la fonction publique. Elle a été suivie par le 6 octobre 2018, l'assassinat lâche d'une de nos militantes à la suite d'un meeting que nous avions organisé à Kermassar. Je veux citer Madame Mariama Sagna. Cet événement douloureux continue à nous poursuivre puisque nous continuons à honorer sa mémoire, mais de l'autre côté, nous continuons à assurer un soutien substantiel à sa famille, notamment les trois enfants qu'elle a laissés derrière elle. Son assassinat ne fut pas seulement une violence physique, mais il fut accompagné de violences verbales parce que certains membres du régime ne s'étaient pas privés de jeter l'opprobre sur la mémoire de la défunte. Le 3 octobre 2018, une autre violence s'exerça à Ziguinchor, où nos militants furent attaqués pour leur prendre les fiches de parrainage et où la gendarmerie fut envoyée de manière inquisitoire chez ma maman pour aller récupérer les dites fiches de parrainage. Elle sera suivie quelques jours plus tard par le sac de notre siège 6 à Yoff, où du matériel a été cassé par des nervis envoyés par M. Djoufsar des nervis qui ont cassé tout ce qui se trouvait comme ordinateur, comme téléviseur et qui ont blessé les deux permanents qui s'y trouvaient. Une plainte avait été déposée à la gendarmerie de la Foire, à ce jour sans suite. Le 4 février 2019, notre caravane fut attaquée à Saint-Louis et nos militants furent gravement blessés précisément le 4 février 2019, un jour après le démarrage de la campagne. Des plaintes avaient été déposées, jusqu'à présent, aucune suite. Et je précise que c'était des nervis envoyés par M. Mansour Faye. Le 10 février 2019, notre caravane fut également attaquée à Bourg, au quai de pêche de Bourg. Et tout ce que je dis peut être vérifié parce que les images sont encore là sur les sites internet. Le 11 février 2019, notre caravane fut attaquée en pleine campagne à Fatigue par des nervis envoyés par le ministre des Sports et beaucoup de nos militants furent gravement blessés et jusqu'à ce jour, il y en a un qui fait la navette entre Fatigue et Dakar pour pouvoir bénéficier de soins de rééducation. Le 18 février 2019, notre convoi fut attaqué à Airelao par des nervis armés de coupe-coupe, de machettes et de pierres envoyés par M. Muntagasi, le DG de l'APEX. Le 3 mars 2021, notre convoi fut violemment attaqué alors que je me rendais simplement au tribunal pour répondre à une convocation du juge d'instruction. Ce fut devant toutes les caméras du monde, du Sénégal comme de l'étranger. Cela entraîna une semaine de violence intense à Dakar, au bout, desquelles, au bout de laquelle 14 vies humaines furent perdues et jusqu'à ce jour, aucune enquête n'est diligentée par l'État du Sénégal, c'est-à-dire par Macky Sall, pour identifier les auteurs alors que tout le monde a vu les nervis recrutés par l'affaire logé au siège de la paire et au siège du Parti Socialiste. Les vidéos sont là, les preuves sont là. Et nous avons fait un memorandum que nous avons partagé au niveau national et au niveau international avec toutes ces preuves. Le procureur de la République refuse d'ouvrir une instruction sur cette affaire. 14 vies humaines ont été perdues. Des dizaines et des dizaines de blessés. Et je tiens à dire que jusqu'au moment où on vous parle, c'est nous qui assumons la prise en charge de tous ces blessés. Il y en a qu'on a logé ici, à Wakam, et nous gérons tous les soins de ces blessés, ce qui nous coûte au minimum 1 500 000 par mois. Ceux qui ont été blessés, estropiés, qui ont perdu un bras, une main ou une jambe, nous sommes en train de leur faire faire des prothèses avec l'aide de la diaspora que je remercie au passage. Je disais tantôt que nous sommes les premiers promoteurs de la paix au Sénégal. On me signale qu'il y a eu un lapsus. Ces événements ont été douloureux et ont entraîné l'intervention des guides religieux au Sénégal. Ce qui nous avait amené, bien que tenant le bon bout, tout le monde avait vu que le rapport de force était totalement inversé et que celui qui se définissait comme un lion s'était transformé en chat, caché sous son lit, mais sur demande des guides religieux et de la, des guides religieux et de la société civile, nous avions accepté de lancer un mot d'ordre d'apaisement, de demander à ce que tous les jeunes regagnent leur foyer. Et je rappelle également que le principal intervenant, qui était le calife général des Mourides, nous avait demandé en contrepartie de la doléance qu'il avait introduite, que nous lui transmettions notre mémorandum qui remettrait en main propre à Macky Sall ce qui fut fait. Et jusqu'à présent, ce mémorandum n'est pas suivi d'effet. Pire encore, depuis lors, 20 jours à peine après ces événements, Macky Sall se rendait à Djamnyadjo où il réunissait soi-disant la jeunesse sénégalaise, celle-là qui venait de lui infliger sa première vraie défaite, il réunissait en réalité quelques-uns de ses militants. Et de là-bas, il a lancé des menaces pour dire que ce qui s'était passé ne se repassera jamais. Qu'il allait prendre des dispositions. Et en parlant de dispositions, c'était de réarmer les forces de défense et de sécurité, de recruter 2000 ou 3000 policiers, 2000 ou 3000 gendarmes, de voter des lois liberticides sous couvert du terrorisme, de mettre des magistrats béni qui sont à sa disposition, et c'est ça son dispositif de répression. Mais il se, trompe s'il pense que ça, ça peut arrêter un peuple. Il n'a qu'à demander à Ben Ali, il n'a qu'à demander à Bouteflika, il n'a qu'à demander aux Soudanais. On n'arrête pas un peuple avec des chars. Il n'a rien compris. Des menaces, il y en a eu. Des invectives, des insultes sur les plateaux de télé, des insultes par écrit. Il y en a eu depuis lors parce qu'ils n'ont que ça, ça, cela à la bouche. Et c'est pourquoi je, m'inscris en faux quand on dit qu'il y a des jeunes très virulents sur Facebook ou sur les réseaux sociaux qui attaquent, etc. Certes, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de faire, qui ont souvent des faux profils. Et beaucoup ont été identifiés comme étant des profils fomentés, créés par des gens de la paire, avec la photo de Sonko pour insulter des guides religieux, pour insulter des dignitaires, mais ça n'a rien à voir avec nous. Mais les gens qui sont avec nous et qui ne se cachent pas, qui ont des profils, se battent avec les armes qu'ils ont parce qu'ils n'ont pas accès aux télévisions verrouées, ils n'ont pas accès euh, à, à beaucoup de médiums, mais ils se battent avec les moyens qu'ils ont et c'est les moyens du 21e siècle, heureusement. Et nous l'assumons. Des attaques physiques, il y en a eu également. Et les deux dernières en date, c'est des attaques contre ma personne, des attaques attentatoires même à ma vie, à Ziguinchor. Vous savez que si je n'étais pas un homme de paix, vous savez qu'à Ziguinchor, j'ai les moyens de régler mes comptes en une, en une, fraction de seconde. Je ne sais pas où, mais à Ziguinchor, en une fraction de seconde, j'ai les moyens de régler mes problèmes. Mais c'est parce que nous sommes des hommes de paix que nous évitons de recourir à la violence. Mais chaque chose à ses limites. Donc, deux attaques à Ziguinchor. Je ne parle pas des, des arrestations arbitraires, dont la dernière en date, c'est l'arrestation en compagnie de Barthélémy Diaz et Malik Gakou, simplement parce qu'on se rendait au tribunal. Je ne parle pas maintenant de toutes les autres violences qui ont été exercées sur la classe politique, dont les plus en vue sont des violences judiciaires pour éliminer des adversaires politiques qu'on craignait, notamment M. Khalifa Abubakar et M. Karim Maïsawad. Tout le monde a assisté à ces violences. Je dis tout le temps que on peut, on peut lui reprocher ce qu'on veut. Ablaïwad n'a jamais empêché un adversaire de concourir. Même ceux qui, faisaient peser une menace réelle sur lui. Même Abdou Diouf n'a jamais empêché Ablaïwad d'être candidat. Senghor ne l'a pas fait. Avec Macky Sall, à moins de 7 ans, on a empêché à deux candidats de pouvoir compétir. C'est inédit dans les annales politiques du Sénégal. Ça, c'est la forme suprême et absolue de violence. Et c'est une violence d'abord contre la démocratie sénégalaise, contre la libre expression du suffrage par le citoyen. Et nous avons assisté à ça ici. Je ne parle pas des arrestations et des tortures contre les activistes. Toutes les semaines, le plus en, euh, vue, c'est probablement Guy Marissagna. Est-ce qu'il n'a pas fréquenté au moins une vingtaine de fois les, les, les, grilles et les géoles de Macky Sall Quelquefois parce qu'il a simplement fait un post Facebook. Et pendant tout ce temps-là, il abrite derrière lui des criminels à col blanc qui ont volé l'argent du pays, pris la main dans le sac, épinglé par un rapport, pris en flagrant délit. Ça, si ce n'est pas de l'injustice, comment vous pouvez l'appeler Et je voudrais lancer un appel aux Sénégalais. Il faut que les gens arrêtent de penser que opposant, c'est être martyr, c'est être souffre-douleur. L'opposition n'est pas un crime. C'est la constitution de ce pays qui donne à tout Sénégalais la possibilité de choisir de faire ou de ne pas faire la politique. Et s'il en fait le choix, d'aller au pouvoir ou de faire de l'opposition. C'est un droit constitutionnel. Mais dès que vous êtes opposant dans ce pays, tout le monde vous avertit. Vous allez faire la prison. Vous allez. Est-ce que ce qu'on appelle les grandes démocraties, est-ce qu'ils sont meilleurs que nous Est-ce que nous devons accepter que nous sommes presque à, l'état animal où les gens se dévorent comme, dans la jungle et on n'applique pas la loi Pourquoi un adversaire peut faire de la politique aux États-Unis sans être inquiété sans qu'on fomente des complots, sans qu'on essaie de l'emprisonner, qu'il puisse le faire en Allemagne, qu'il puisse le faire en Italie, je ne sais où. Et qu'au Sénégal, dès que vous êtes opposant, surtout sous Macky Sall, on vous dit préparez vos bagages, vous irez en prison. Au nom de quoi C'est ça la, plus, la pire forme de violence et d'injustice. Et elle prendra forme de gré ou de force dans ce pays. Parce que personne n'acceptera plus ces pratiques. Macky Sall n'est pas mieux né que les gens, il n'est pas plus légitime que les gens, il n'est pas plus sénégalais que les gens, il ne faut pas qu'il pense qu'il a hérité de ce pouvoir et qu'il peut en faire ce qu'il veut. Nous ne l'accepterons pas. La liste est très longue et nous la publierons, plus un documentaire qui a été monté sur les violences sous l'ère Macky Sall et qui sera diffusé dès cet après-midi, avec des preuves à l'appui. Ceci pour dire simplement que Macky Sall n'est pas un homme de paix. Obnubilé par le pouvoir, il est prêt à passer sur des cadavres pour s'y maintenir. Il est déjà passé sur des cadavres. C'est ça la réalité. Mais nous ne le laisserons pas faire. Il s'est fourvoyé depuis le début en pensant qu'il pouvait réduire l'opposition à néant. Mais un pays comme le Sénégal, qui connaît la confrontation politique, l'opposition politique, depuis avant même l'indépendance. Pionnier, pionnier au, sein de l'AEF et peut-être même de l'Afrique. Et qu'au XXIe siècle, un président, soi-disant né après les indépendances, vienne dire que je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. C'est irréfléchi. Il ne peut pas, il n'en a pas les moyens. Et malheureusement, il y a des turiféraires autour de lui ou des soi-disant analystes qui font le tour des plateaux pour dire que le, monsieur serait un génie politique. Un génie politique incapable de régler le problème des Sénégalais. Incapable de mettre fin à la souffrance d'un peuple qui ne mange pas à sa faim, qui ne se soigne pas correctement. Regardez, les hôpitaux sont des mouroirs qui ne, qui ne, s'éduquent pas correctement, qui n'a pas d'emploi. Les jeunes sont là. Vous êtes incapable de faire ça on vous dit que vous êtes un génie politique. C'est quoi un génie politique finalement En tout cas, à mon sens, est un génie politique. Mais quand vous allez en, euh, euh, en, Malaisie, vous pouvez voir de vous-même que Mahathir est un génie politique. Parce qu'en 10 ou 15 ans, il a fait des miracles là-bas. C'est ça un génie politique. Et un génie politique qui passe tout son temps à comploter pour liquider X ou Y. C'est ça un génie politique. Il faut que les gens reviennent à la raison. Et malheureusement, c'est les intellectuels, des intellectuels eux-mêmes qui tombent dans ce piège, dans leur analyse. Nous ne sommes pas violents, je l'ai dit. Nous sommes simplement les premiers à réussir, à avoir réussi à tenir tête à la violence aveugle de Maki. Nous ne sommes pas violents. Il l'a fait et refait et refait sans problème. Par la grâce de Dieu et le soutien du peuple sénégalais, auquel je rends hommage ici, je considère, je dis que nous sommes les seuls à avoir pu tenir tête à la violence aveugle de Macky Sall. Nous sommes en posture de légitime défense. Et tous ceux qui diront le contraire sont nos ennemis. Parce que personne ne me dira d'aller me livrer à Macky Sall pieds et poings Parce que quand vous entendez certains discours, c'est ce que ça sous-entend. Oui, etc. Laissez passer. Yalla bahna. Yalla bonul musul bon. Yalla du bayal Je voudrais également revenir sur des arguments qu'on entend souvent. Je dis, si on n'a pas le courage de dire la vérité, d'indexer les coupables, mieux vaut s'abstenir de parler. Souvent, quand il y a des accrochages quelque part, vous entendez des gens qui disent on les renvoie dos à dos. Après, ils reviennent pour dire, nous allons faire... non, vous ne pouvez pas renvoyer les gens dos à dos. Quand il y a un problème, il y a forcément quelqu'un qui a fait ce qu'il ne devait pas faire. Il y a quelqu'un qui a pris l'initiative d'attaquer. Et tout le monde sait qui attaque. Et pourquoi revenir pour dire on les renvoie dos à dos Deuxièmement, on veut faire croire que tout le monde est armé, surarmé, que tout le monde a une milice prête à attaquer les gens. Tout le monde a des nervis. Mais c'est faux. Nous, nous avons une sécurité rapprochée malgré nous. Parce que si j'avais le choix, je, ne serais pas tout le temps encadré de deux ou trois personnes. Mais la situation l'exige. Vous ne verrez jamais cette sécurité autour de ma personne aller attaquer pour disperser un meeting de la paire, ou pour, aller attaquer la maison de, de quelqu'un de la paire, ou pour euh, intercepter des jeunes de la paire et les tabasser, vous ne le verrez jamais. C'est une protection rapprochée. C'est quand il y a une menace ou un danger sur nos personnes, ils sont là pour écarter cette menace et ça se limite à ça. Ça n'a rien à voir avec les milices qu'on recrute, qu'on loge dans des sièges, à qui on donne des fusils d'assaut pour leur dire allez tirer sur la foule. Ça, c'est la paire qui l'a, c'est Macky Sall qui les a. Et les vidéos sont là pour le montrer. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Après, on dit, oui, il veut conquérir le pouvoir en marchant sur des cadavres, il veut brûler le pays. Moi, je ne peux pas brûler le pays. Le seul qui, qui a aujourd'hui cela entre ses mains, il s'appelle Macky Sall. Et je peux vous garantir qu'il n'hésitera pas à le faire. Il n'hésitera pas. La stratégie qu'il a, c'est la stratégie du chaos. Parce qu'il ne compte que sur ça pour pouvoir justifier des mesures exceptionnelles, l'état d'urgence l'état martial, etc., sortir de l'armée et en profiter pour essayer de passer en force. Donc nous ne sommes pas dans cette dynamique. Nous avons les moyens de conquérir le pouvoir si Dieu, le, vient et veut, le veut bien et si les Sénégalais nous font confiance par des voies démocratiques. Parce qu'il y a cinq ans, nous n'existions pas. Aujourd'hui, nous sommes là où nous en sommes. Ça veut dire que si, si on n'est pas obnubilé, on sait qu'on est sur la bonne trajectoire et on n'a pas à être pressé. Nous n'avons que le Sénégal, nous n'avons aucune autre nationalité. Nous n'avons aucun parent ailleurs, nous sommes ici, nous vivons ici, nos enfants vivent ici, ils étudient ici. Quel intérêt nous aurions à brûler le pays Ils disent également, parce qu'on essaie de nous mettre en mal avec le peuple sénégalais chaque fois, avec l'instrumentalisation d'une certaine communication. Moi, personne ne peut me mettre en mal avec personne. On ne peut pas mettre en mal avec les dignitaires religieux. Je respecte tout le monde et je crois l'avoir suffisamment démontré. Ce que nous disons, nous considérons être une personnalité humblement, modestement dans ce pays. Suivi, écouté, aimé par des milliers et des milliers, voire des millions de Sénégalais d'ici et de la diaspora. Et au-delà même, dans tout le continent africain. Beaucoup d'espoirs sont fondés non pas sur notre personne, mais sur notre projet. Nous considérons qu'à ce stade, si nous avons besoin de parler à une autorité religieuse, n'ont pas besoin d'intermédiaire nous demanderons à être reçus. Si cette audience nous est accordée, nous irons rencontrer la dite autorité religieuse pour lui parler. Si une autorité religieuse a besoin de nous parler, elle n'a pas besoin d'intermédiaire elle nous fait appeler. Toute affaire cessante, nous irons répondre et écouterons, discuterons, expliquerons. Parce que souvent, des gens se prévalent de parler au nom d'une autorité religieuse ou au nom de toute une religion ou de toute une tarifa alors que personne ne les a envoyés. Vous voyez même des gens qui sortent pour menacer au nom de toute une tarifa alors que personne ne les a envoyés. Ces formes de chantage-là, c'est fini. Si on a des choses à dire, les responsables sont là, on les dira. Et nous respectons énormément les autorités religieuses. C'est pourquoi, quand elles nous demandent quelque chose, nous obtempérons. Beaucoup de gens continuent à nous reprocher. Certains me disent, si tu nous avais laissé finir le travail au mois de mars, on n'en serait pas là. Beaucoup de gens m'interpellent pour me dire ça. Nous avons accepté parce qu'une autorité respecté, respectable, nous a demandé et nous avons accepté. Et nous ne regrettons absolument rien par rapport à ça. Est-ce que l'autre partie a respecté sa, sa part du contrat Absolument pas. Parce que dès le lendemain, c'est des menaces et aujourd'hui, c'est des attaques, c'est des invectives et c'est des manipulations. Maintenant, pour l'initiative de la charte, je voudrais simplement dire le respect que j'ai pour les initiateurs de cette charge. Respect qui s'est matérialisé au mois de février quand ils ont souhaité me rencontrer, je les ai reçus chez moi en pleine crise. Et nous avions eu à discuter longuement. Respect qui s'est matérialisé également dans toute la phase qui est euh, partie du février au mois de mars où ils ont travaillé étroitement avec le M2D et notamment avec docteur Cheikh Diaye. Jusqu'à la journée du 8 mars, ils ont passé la journée avec nos éléments, ils ont discuté, ils ont insisté et demandé à ce que un mot d'ordre soit lancé à la jeunesse. Ils étaient en contact permanent avec le préfet, parce que le préfet du préfet, lui, s'était caché en ce moment et nous avions accepté. Je crois que c'est suffisamment probant pour démontrer que nous avons beaucoup de respect pour ces messieurs. Mais il y a des problèmes. Le premier, c'est que quand je, les quand je les avais reçus, j'avais posé un certain nombre de questions. De quelle légitimité et de quel pouvoir dispose-t-il pour pouvoir infléchir éventuellement l'autre camp, pour pouvoir lui parler Premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'ils assumeraient d'aller jusqu'à dénoncer publiquement s'il était établi, s'il était carrément établi que le tort incombait à Macky Sall, est-ce qu'ils accepteraient publiquement de le dire pour que le peuple soit édifié parce que si vous voulez jouer un rôle d'arbitre, il faut accepter de pouvoir désigner le coupable. J'avais posé également cette question-là. Je n'ai pas eu de réponse et je continue à poser cette question. Quelle est la valeur exécutoire d'une charte signée dans ces conditions-là De quel pouvoir disposons-nous pour contraindre les uns et les autres à appliquer cette charte Mais mieux encore, quand on a une constitution et des lois de la République qui régentent déjà cette matière, on dit, je ne parle même pas de violence globale, on dit deux caméramans se sont battus, l'un a blessé l'autre, ils cherchent un certificat médical, ils portent plainte, on arrête, on juge. A fortiori, lorsque c'est des milices qui sont armées pour aller attaquer des gens et tuer, il y a des lois de la République qui, qui réglementent cela et qu'on n'applique pas. Quand on a la Constitution, qui est la charte fondamentale, on a le code pénal, le code de procédure pénale et tout un arsenal encore de, de, lois et règlements qu'on n'applique pas. On a une administration judiciaire, on a une justice, des procureurs un peu partout, des juges d'instruction, des juges du jugement, ainsi de suite. Et que tout ça n'opère pas pour régler cette question définitivement. Comment peut-on penser qu'une charte peut régler ça Un engagement à valeur strictement morale pour ceux qui ont de la morale. Et nous savons qu'on n'en a pas beaucoup par ailleurs. Comment voulez-vous qu'on règle cette question-là avec une charte Disons-nous les choses telles quelles. Alors, nous avons posé ces questions-là. Ensuite, entre les médiations qui ont été euh, engagés au mois de mars et maintenant. Les agressions verbales ont repris. Les agressions physiques ont repris. Les agressions judiciaires ont repris. Les agressions policières ont repris. Nous n'avons vu personne pour en parler. Nous n'avons vu personne pour condamner. Nous n'avons vu personne pour réagir. Pourquoi subitement sortir maintenant parce que ceux qui sont tout le temps attaqués, tabassés, blessés, tués, on dit qu'on ne se laissera plus faire. On se lève pour dire qu'on veut faire une charte. À quoi servirait cette charte-là Et ce que nous ne voudrions pas, c'est qu'on nous enferme. Parce qu'une signature pour un homme de principe, une signature, ça vaut ce que ça vaut. Et quand vous signerez que demain au soir du 23, Macky Sall décide de tripatuer les élections à Dakar ou à Ziguinchor, on va dire aux gens, vous ne pouvez pas bouger parce que vous aviez signé. C'est comme ça que ça va se passer. Demain, ce sera la même chose pour le troisième mandat. Moi, j'ai dit et je le réitère, je ne signerai pas de charte ou de pacte de non-violence. Ma position, elle est très simple. Nous n'attaquerons jamais quelqu'un, je le réitère. Diamou est commencé Que chacun se retienne d'attaquer. Nous n'attaquerons, vous n'entendrez jamais que nous avons attaqué. Nous éviterons autant que possible, tant que c'est de petites forfaitures, de réagir. Il y a des choses qu'on ne peut plus accepter. Parce que ceux qui ont été blessés au mois de mars, c'est nous qui continuons à les gérer. On ne peut plus accepter cela. Et que chacun doit aujourd'hui s'assumer et prendre ses responsabilités. Ensuite, si on veut un pacte, le pacte existe déjà. Parce que le mémorandum structuré autour de 10 points qui avait été remis à Seigne Muntaha Mbake, euh, Khalif général des Mourides, au mois de mars, qu'il avait promis de remettre à main propre à Macky Sall et qui englobait un certain nombre de points parmi lesquels l'ouverture d'une enquête pour identifier, traquer, arrêter et juger les auteurs des crimes qui ont été commis, l'indemnisation des familles des victimes et des blessés, la cessation de toutes les tracts injustifiées contre les opposants, la déclaration publique de M. Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat parce que retenez qu'en Afrique, partout où ça brûle, c'est le troisième mandat qu'il a brûlé, partout en Afrique. Et si Macky Sall persiste, je ne crois pas que ça, ça épargnera le Sénégal de restituer le droit civique à des opposants qui en ont été injustement privés. Il y avait une dizaine de points. Ça, c'est entre les mains de Macky Je demanderai à, euh, au cadre euh, unifié de l'islam, je leur demanderai humblement d'aller regarder vérifier là où on en est avec ces questions-là et de reprendre cette affaire là où on l'avait laissée. Je crois que c'est mieux que d'ouvrir un autre dossier qui va nous faire repartir à zéro et qui va essayer d'enterrer ce qui s'était passé. Parce que nous attendons l'ouverture d'une enquête pour identifier les criminels. Ça, c'est extrêmement important. Enfin, je parlerai un peu de la justice, la mascarade qu'il y a eu avant-hier, avec le Conseil supérieur de la magistrature. Je dirais simplement que malheureusement, chaque Conseil supérieur de la magistrature se tient avec son lot de complots, de règlements de compte, d'exclusion de magistrats qui n'ont commis aucune faute que leur dignité et leur indépendance, qui comprennent pourquoi ils ont prêté serment, et de promotion de Béni du régime. Et cela va continuer tant que le président de la République et son ministre de la Justice vont siéger au Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est des survivances de régimes dépassés qui ne garantissent pas la séparation des pouvoirs. Tant qu'on aura ce système, c'est illusoire de parler d'indépendance de la magistrature. Et la réponse qui a été servie d'ailleurs par le ministre de la Justice à un des magistrats qui a eu le courage de, de dire là-bas, séance tenante, ce qu'il pensait, cette réponse est éloquente et elle prouve que c'est l'exécutif qui choisit ses juges, qui vont juger pour lui et non pas pour au nom du peuple sénégalais. Et l'illustration la plus parfaite en est les profils qui ont été retenus pour le poste de procureur de la République et pour le poste de doyen des juges. Je ne me réjouis absolument pas du départ de Serigne Bassirou parce qu'entre lui et celui qui vient, c'est la même chose et peut-être même ce sera pire. Je ne m'en réjouis absolument pas. Je constaterai seulement et je dirai seulement à Seigne Bassirou qu'il s'est vanté partout qu'il allait avoir la tête de son Sonko. Partout. Il a osé proférer même des menaces publiques. Il a osé même s'attaquer à ma vie privée. Pour un magistrat, c'est le summum de la bassesse professionnel. Aujourd'hui, il, il part et il me laisse là où je suis. Et s'il plaît à Dieu, il me verra longtemps là où je suis. Il va rejoindre son mentor, Maître S en complot, et ils vont continuer à faire leur complot dans les couloirs du palais. Mais son remplaçant, n'oublions pas qu'il vient de la chambre d'accusation. Et il y a trois mois, il s'était empressé de classer sans suite le fameux dossier des 94 milliards où des escrocs avaient grugé l'État du Sénégal avec la complicité de fonctionnaires pour siphonner 94 milliards. Et mieux encore, le rapport de l'OFNAC que je félicite ici, parce qu'il faut le faire. Les gens disent que ça ne sert à rien, ça sert à quelque chose. Parce que ces rapports-là, tôt ou tard, on les sortira et on les traitera l'OFNAC a eu le courage, je félicite la présidente et tous les membres de l'OFNAC, de faire un travail sérieux qui a abouti, en plus des 94 milliards, à démontrer qu'il y a plus de 92 autres milliards concernant 26 autres dossiers qui ont été pillés. Je dispose du rapport. Dans un pays normal, ces, gens auraient dû être arrêtés depuis longtemps et jugés. Et puisque c'est des porteurs de valises auprès de Macky Sall, on ne les inquiétera pas. Et je disais donc que c'est ce procureur, nouveau procureur, qui s'était empêché de classer sans suite. Et j'avais fait mon poste au mois de juillet pour dire qu'il ne pouvait faire autrement parce, qu'on lui a promis le poste de procureur. Et l'histoire m'a donné raison. J'avais annoncé qu'on lui a promis le poste de procureur et qu'il obéirait aux droits et à l'œil, aux injonctions et aux instructions de Macky Sall. Maintenant, est-ce que vous pensez que ce procureur-là, qui trouve sur sa table un rapport de l'OFNAX sur lequel Serigne avait mis le coude pendant des mois et des mois, vous croyez que ce procureur-là va instruire ce rapport-là Est-ce que vous le croyez Et c'est ça ce qui est devenu la justice sénégalaise. Des dénis de justice, à longueur de journée. On veut être là à traquer des opposants et on dit aux gens ne résistez pas, nous résisterons. C'est ça la vérité. 94 milliards, c'est pas un franc. Combien d'hôpitaux on peut construire avec ça Combien d'écoles on peut construire Combien d'emplois on peut créer Et donc, je considère, puisqu'ils cherchaient des clones du défense Ambassal et euh, de Bassirou ils peuvent avoir trouvé même pire, parce que le second, c'est Omar Maham Diallo, dit que ce monsieur s'est lui-même compromis. Puisqu'en tant que magistrat, il a commis l'imprudence, peut-être qu'il ne pouvait pas s'en retenir, de poster sur sa page Facebook, en tout cas ce qui semble être sa page Facebook, de partager des articles à charge contre Ousmane Sonko. Des, articles condamnés Ousmane Sonko. Comment voulez-vous que ce monsieur aujourd'hui instruise correctement un dossier d'Ousmane Sonko et quand le poteau rose a été découvert, vous savez, Dieu est très grand. Dieu est très grand. Parce que depuis le début de cette affaire-là, à chaque fois qu'il fomente quelque chose, il y a un petit truc qui sort de l'autre côté et qui met tout à nu. Ils avaient tout prévu, mais ils avaient oublié peut-être cette affaire-là. Et depuis hier que les gens en ont fait leur sous gras sur Internet, mon avocat m'a appelé à, 20 21h pour me dire D'abord, à 18h, il avait supprimé le, poste et à 21h, il a supprimé la page tout court. Les captures d'écran sont là, il y a des millions de captures d'écran qui ont été faites. Faites du moins. Comment pensez-vous que ce monsieur-là peut instruire un dossier qui concerne Ousmane Sonko, dossier sur lequel il avait déjà partagé des articles à charge pour dire qu'Ousmane Sonko est coupable Mais c'est ça que Maki cherchait. Il n'a pas mis neuf mois à, pour rien il cherchait des gens qui obéissent au droit et à l'œil. Je veux bien, certains me disent, oui, c'est un magistrat désintéressé, intègre, mais faible, qui ne peut pas dire non aux instructions. L'intégrité ne va pas avec la faiblesse. Et la faiblesse ne va pas avec l'intégrité. quand on croit à des principes et des valeurs, et quand on s'est battu toute sa vie pour être intègre, ne, prendre, ne jamais prendre ce qui ne vous appartient pas, venir à leur travail correctement, on ne peut pas être faible. Et les magistrats qui ne sont pas faibles, on les connaît et vous savez tous qu'ils sont intègres. Avec nos avocats, nous allons voir cette affaire dans les jours à venir. Enfin, je dirais que cette page, j'ai été long parce que je voulais dire tout ce que j'ai à dire sur cette affaire je ne me prononcerai plus sur cela. C'est derrière moi. Parce que pour moi, c'est des diversions, mais auxquelles malheureusement on est obligé de temps en temps d'apporter quelques éclaircissements. Ce, qui fait notre profil politique, c'est notre capacité à être dans le débat qualitatif, dans le débat public, dans le débat de proposition, de réflexion, de rédaction et de proposition. Et c'est pourquoi dans les prochains jours, je n'aurai pas de temps pour ces débats. Nous présenterons notre troisième ouvrage que nous avons écrit, co-écrit sur notre vision de la décentralisation dans les tout prochains jours au Sénégalais. Parce que pour moi, un homme politique doit proposer, doit dire aux Sénégalais ce qu'il pense, ce qu'il voit et comment il le voit. Et deuxièmement, nous irons présenter à la Casamance, je n'ai pas dit à notre vision et notre programme pour la Casamance. Donc je ne serai plus là à débattre sur des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Je terminerai simplement par dire que je prends très au sérieux tous les avertissements sur des menaces portant sur notre sécurité, allant de d'attentats sur notre personne à même des solutions, des schémas les plus extrêmes, notamment des meurtres. Ce n'est pas nouveau. Depuis 2019, nous recevons ces alertes, quelquefois de personnes très bien indiquées dans le dispositif. Nous prenons toutes les précautions potentielles, en tout cas, qui sont à notre disposition. Mais je voudrais dire et particulièrement à Macky Sall, que celui qui tient à la paix dans ce pays, qui tient à la paix pour lui-même, pour sa famille et pour les 17 millions de Sénégalais, devra s'abstenir de poser des actes irréparables dont les conséquences seront incalculables pour lui-même. Je vous remercie. Ouais. de la charte de gouvernance. Est-ce que vous vous serez je, Non, je n'y répondrai pas, mais je peux vous dire qu'avec Yehu Askanui, on est en phase, on travaille sur toutes les questions et on discute de tout. Euh, euh, euh, comment le d'instruction n'est pas d'accord pour équipes, par exemple La deuxième question, c'est que de la charte, la charte, vous ne la signerez pas, mais est-ce que vous n'avez pas peur de la je n'ai même pas compris votre question. Non, la première, je l'ai entendue. Je crois que si vous avez suivi la trame de ma conférence, vous devez comprendre que je ne suis pas un homme politique qui vit de pression ou sous la pression. Je respecte tout le monde et j'apprécie les choses de manière assez détachée et en concertation avec mes staffs. C'est la première chose. La deuxième question, vous avez la réponse vous-même. Je ne peux pas, moi, déplorer la présence du président de la République et du ministre de la Justice dans le Conseil supérieur de la magistrature et moi proposer un juge.